waaw ah, merci président maa ngi nuyu monsieur le ministre euh, di nuyu seen collaborateurs yi euh, di boole ci nuyoo bi euh, monsieur Ablaye Diop DG de COSEC di suñu maire à Sédhiou di wax rek ci budget ministère de la pêche et de l'économie maritime lu may commencer mooy dégg naa sànq ci rapport bi ñuy wax sur le l'arrêt bateau yu jëm diggante Dakar ak Ziguinchor. ñu ne dañ ko arrêté pour des raisons sécuritaires ma ne loolu ay caaxaan leen politique politicienne ngeen di def bàyyi leen loolu reprendre leen liaison maritime en Dakar et Ziguinchor marché du port ak marché Escale yéen a ngi koy rey c'est votre responsabilité nañu bàyyi caaxaan yi ak ay wax yoo xam ne tegu leen ko fenn des arguments légers naan ay sécuritaire te da di politique bon leneen lu ma bëgg a wax euh, contexte bu ñu nekk effectivement Sénégal dégg naa léegi day importer jën si journal yi laa ko liire dëgg la wala du dëgg am na journal yu ko journaux yu ko titré dama bëggoon am ci ay leeral Sénégal 700 kilomètres de côte 200 000 euh, zones économiques exclusives muy importer jën loolu nu mu mun a nekkee contexte bu ñu nekk nii on dans un contexte boo xam ne jën manqué na jën cher na avec la surexploitation pêcheurs yi nappkat yi ak acteurs yu nekk ci secteur bi ko waxal yàlla rek xam ne jaaxle nañu te ñu bëri gisatuñu seen avenir ci pêche bi lu koy firndeel mooy conflit yu am entre acteurs yi gis nañ dem nañ sax ba ñuy reyante entre ñoo xam ne ay mboq nañ peut-être mun nañ ma ne du lu bees mais ampleur bu mu jël ak gravité bu mu jël kenn mësu kaaw gis beneen bi gis nañ ni émigration irrégulière bi doole bu mu am parce que une participation communauté de pêcheurs yi la ñoom ñooy yore gaal yi ñoom ñooy dawal gaal yi ñoom ñoo mën a xam ñoom ñoo mën a yóbbu gaal yi Espagne ak feneen donc ñooñu lu tax ñuy dugg ci secteur activité boobu parce que pêche bi doxatul beneen bi exploitation pétrolière ak gazière offshore moo ngi ñëw te yan mesure nañu jël pour aar secteur pêche bi parce que soo xoolee gaz ba Saint-Louis la zone de pêche la euh, également au niveau du delta de Saloum zone de peche la et également au niveau de Kayar zone de pêche la changement climatique yi ak ses effets néfastes jëloon ngeen fii un plan national d'adaptation dans le secteur de la pêche mise en œuvre yi fan ngeen ci toll est-ce que document la rek bu ngeen jël ranger sur les tiroirs dans les tiroirs question de la transparence dans l'octroi des licences de pêche loolu bëgg nañ ñu leeral ko licence de pêche nu ngeen di ko joxee jaaxal na ñëpp ah te transparence bi des na si problème mu autorisation d'implantation usine de farine de poisson yi dañu nee woon dañ koy gelé mais gis ngeen accordé ngeen ay autorisation d'implantation yu bees si lan ngeen ko teg alors que nit ñi ñoo ngi xaar arrêté de gel de ces autorisations d'implantation parce que jën boo xam ne nit ñi amuñu jën pour lekk ñuy jël jën di ko transformer en farine en diwlin di ci dundal di ko exporter leneen li mooy la pêche illicite non réglementée ak non déclarée pêche INN bi moyen de suivi de contrôle et de surveillance yi foo leen ci toll loolu daal nañu bëggoon am ay leeral par rapport ak secteur u pêche yi lu ñuy ñaan nag mooy ngeen geler octroi de toute nouvelle licence de pêche industrielle vraiment donc si stock yoo xam ne c'est surexploité stocku jën yoo xam ne c'est surexploité autorisation d'implantation yi ñoo ngi ñaanaan nga jël arrêté depuis daaw ñoo ngi la koy wax mais ba léegi dafa mel ni lobby yi fa ay usine de ñoo ëpp doole pêcheurs yi ak transformatrices yi beneen bi gestion ñu jël ay mesures de gestion durable des pêcheries évaluer également accord de pêche bu ñu am ak Union européenne balaa ñu ko a renouveler ñu évaluer ko daf évaluation de manière indépendante am na ay standards internationaux en matière de transparence ITIE am na ci pétrole ak gaz mais am na ITIE pêche Mauritanie si la bokk lu tax Sénégal bëgg cee bokk xanaa bëgguñu lu leer nañu leeral fu may kiiwee améliorer le système de suivi de contrôle et de surveillance tey suivi bi contrôle surveillance des na soo jëlee lu mel ni CROT yéen a ngi koy alloué cent millions mais loolu dafa néew nañu yokk seen yokk leen seen loxo bateau bu nga xam ne mooy def évaluation boobu bateau boobu dépanne leen ko depuis 2016 moo ngi paan itaf dem dépanne leen ko mu ñu def évaluation suñu stock 15 millions la monsieur le ministre des finances et du budget c'est lu ma wax fu may jeexalee mooy secteur bi dañu ne économie maritime et pêche mais ñun dañu nekk ci dëkk boo xam ne dafa am ay fleuve nga dem Casamance nga dem fleuve Sénégal nga dem Gambie économie fluviale boobu naka ngeen di ko jëlee en compte dans votre secteur tey le dragage du fleuve Casamance ñoo ngi koy wax depuis des années lan ngeen di lan ngeen ci prévoir yan mesure ngeen ci préconiser beneen bi la pêche continentale kenn du ci wax parce que da ngay napp ci du si géej gi rek mais ci dex yi nit ñaa ngi napp même su fekkee néew na mais war nañ ko mën a relancer donc la loi sur la pêche continentale ça fait 60 ans jëloon ngeen ci ay mesures pour actualiser ko jël loi bu bees mais ba léegi ça traîne ça fait 60 ans 1963 aquaculture nag laay jeexalee PSE dafa ne woon 50 000 tonnes mais mënuñoo dépasser 10 000 tonnes on est en 2023 donc Sédhiou nee woon ngeen da ngeen di ko def pôle aquacole national mais san ne décolle pas ça n'émerge pas donc lañu ñu bëgg a ngeen jël ay mesures ci budget bi pour pôle aquacole national boobu ngeen traduire ko en réalité en réalité loolu laa leen doon bëgg a wax merci beaucoup jërëjëf